seen biir di eh, xuloo seen biir di ŋaayoo di xëccoo eh, ci loo xamante ni daanaka du kenn du xam eh, fan lañ ko teg mu doon loo xamante ni ñu bëri dañ naan li nga xamante ne rek moom mooy violence bi nga xamante ne am na ñu ngi koy gën a seetlu ci diggante ñaar wala ba ñetti coalition yooyu la di Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. ak bile di wal li ni mel ne du samay kàddu kàddu yi nga xamante ni ñoom ñooy mbokku sénégalais yi nga xamante ñoom ñooy yeewoo fii ci dëkk bi demoon nañ ci def ab xool ñoom seen taxawaay wala boog seen xalaat ci xew-xew bi nga xamante ni am na fii ci Sénégal bu dee yemb na rek Salma mhm. dañ koy seetaan comme sax bu ko defee ñu daal di gën a gën a fàcce waa état bi ñoom nit ñi normal affaire yëpp jaar ci yoon ñoom arrangé wu leen mais ñoom nag ñooy ñooy ñooy filtré wu ci biir di yàq di jaxase am romb naa benn kii euh, benn affrontation bu amoon fële mais waa benn ñoo commencé yëkkati wax yu sew ak ak xeex ak yooyu nit ñi seen bopp ñoo xaw a perte waaw ñoo perte équilibre quoi xamatuñu xamatuñu daal fi ñuy taxaw moo tax violence bi bari xam nga élection la ñu wax ku nekkee nga yore sa carte quel que soit lu la naqat yi mel mais bàyyil ba jour bi rek nga def li ngay def c'est plus facile no mais jarul xeex jarul xeex ay ay kii la parce que di nga faral nit naan da ngay dem xeex ñu gaañ la wala ñu rey la jour élection bi xam nga doo voté enfin wut nguur wala wut post wala lépp lu ñu mun a wut daal soo xam ne da nga koy wut si affaire ay politique wala affaire meloon <laughs> violence jaru ko. Hmm, awa. Salma mi ngi noonu comme man de maa ngi sama <laughs> casque. <laughs> noonu yëfu yëfu faaleen ak yëfu ña ña ñangeen ñangeen macha mi ngi noonu donc ñu ñoo gisandoo élément bi Salma mm-hmm. gis ngeen li gars yi wax moom mooy violence bi nga xamante ne vraiment ñu ngi koy nemmeeku ci yooyu la leader politique rawatina ci yenn ci ay coalition yi ñoom daal xalaat bi ñu ci am benn mooy teguñu ko fenn waaye itam laaj bi nga xamante ni ñoom euh, samp nañ ko bokk na ci laaj bi nga xamante ni moom mooy est-ce que tey ji leader politique yi bu dee ñoom dañuy bëgg di amal seen ay caravane ci violence maanaam ci violence verbale wala boog mu doon physique wala morale est-ce que dinañ am jot euh, euh, fësal askan wi li nga xamante ni moom mooy seen programme wala boog yéene bi nga yéene bi nga xamante ni am nañ ko pour liggéeyal Sénégal mu doon ay laaj yoo xamante ni ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy askan wi ñu ngi koy laajte bu baax a baax mm-hmm. parce que à chaque gis ni que Sénégal saa yu amee wala boog saa yu campagne tàmbalee rek dañ si gis saay su ne euh, leader yi mënuñoo euh, tàmbalee seen campagne ba mu jeex te euh, fitna du ci am wala mm-hmm. boog te violence du ci am wala sañu gis ci ay nit daal si jëlee ay gaañu gaañu ñii ñu daal di saccage seen ay oto wala yàq seen ay ay mm-hmm. matériel mu doon loo xamante ne vraiment jamono ji askan ni ngi koy ñaawlu bu baax a baax di sàkku si ñi nga xamante ne ñoom ñooy leader yi mm-hmm. ñu amal seen ay campagne si jàmmax ak salaam ni ki dimanche bi rek gis nañ le président Macky Sall moom itam génnoon na di woo leader politique yëpp ñu amal seen ay campagne ci anam yi mu gën a Euh, dalee ndaxte nag fitna euh, fi mu nii jamono ji euh, kenn soxlootu ko rawatina Sénégal je pense que ñu bëree bëri war nañoo dépasser situation bi nga xamante ni ngi koy dund ku nekk comme ni ko benn citoyen waxee ci biir reportage bi ak poste boo mën a bëgg ci kaw suuf wala boo ak daraja boo mën a bëgg war nga koo mën a euh, euh, teg wala boo war nga koo mën a am sans pour utiliser li nga xamante ni moom mooy euh, violence li ci gën a doy waar Salma moom mooy coalition yi ku nekk yaa ngi koy jiiñante sa morom mm-hmm. waa coalition Yewwi Askan ñu ngi koy jiiñ waa Benno waa Benno itam di ko jiiñ waa waa Yewwi mu doon loo xamante ni en tout cas mm-hmm. ëlëm na xelu askan bi bu baax ëlëm na xelu askan bi et j'ai l'impression que nekkuñu man sama gis-gis dafa mel ni que nekkuñu si campagne pour législative mais campagne pour présidentielle parce que tey boo xoolee yëf yi ni muy ni muy doxee ñi nga xamante ne dañu nekk ci camp au pouvoir bi ñu ngi naan nañu bàyyi le président Sall doxal bu ko defee politique am gën a mën a jaay yoon opposition bi tamit pareil mm. ñu ngi naan nañ fexe euh, euh, ki nga xamante ni moo di le président Sall du am troisième mandat après mm. doo comprendre sax lan moo war a nekk le rôle ak choix surtout député naka lañ war a tànnee député waaye ki nga xamante tey mooy waay politique bi naka la war a mën a defee campagne pour convaincre nit ki pour mu war ko mën a voter mhm. ngir mu teewal ko fële ca pencum ndaw réew mi après tout ce ça tout cela mhm. je pense que mooy andi violence bi nga xamante ni moo euh, ñëw file ci ci Sénégal que ce soit homme politique yi wala sénégalais j'ai l'impression que xamuñu tey mhm. lan moo war a nekk euh, doxalin ci euh, période bi nga xamante ni moom la la ñu nekk dëgg ma benn coalition wala boog ñi nga xam ñoom ñooy wër euh, ku la mën a wol euh, ku la mën a won benn programme bu palpable benn programme bu concret bu weesoo benn wala ñaar ci ay coalition mhm. bëgguñoo wala boog mën nañ leen tudd ku ci mel ni Aar Sénégal mhm. peut ak euh, les mouvement impairs bu Pape Djibril Fall bu mhm. weesoo loolu wax dëgg yàlla gisuñu fi beneen coalition boo xamante ni wane na fi programme bu concret boo xamante ni dina tax mu mën a gën a ni ñu ko waxatee convaincre li nga xam te moom mooy askan wi ba bu le 31 juillet jotee jël kartam daal di voté ki nga xamante moom moo gën a dal xelam mais malheureusement peut-être euh, ñi nga xamante ñoom ñooy gën a fësal euh, violence doon na loo xamante ne vraiment askan wi peut-être euh, dañuy ñu bëri maintenant dañuy toog di seetaan parce que mhm. xam ne ni gars yi li ñuy def nii kenn xamul fan nañ ko teg mais bu heure jotee ñoom xam nañ bu baax a baax kan lañu kan lañuy voté c'est important tey fii alo konne daanale rek laa fu ci ñoom Abdourahmane Diouf Sénégal mhm. déggul leen ak ñeneen ak ci ci ci législative tey dama yaakaar ni euh, boo amee programme nga am loo xamante ni moo lay xaar ca ensemble ba. Mhm. nga am ay angaat doo tal xeex ak xuloo mhm. ndax responsabilité yi ngay laaj pour ñu jox la ko doo jar te man li ma ci gën a métti léegi euh, tey campagne bi nangay gis euh, muy ci ñaari camp yëpp. Mhm. di ñu nekk ci pouvoir bi ñu nekk ci opposition bi. dañu ñime arme. ay armes yoo xamante ne ñu ngi koy denc seen i saak wala ñu ngi koy denc ci seen i oto mhm. pour bu ñu dajee ñu mën a génn seen armes yooyu xeex te mhm. ñii ñoom ñoom leaders yi dañ koy xam dañu koy xam dafa doon slogan boo xamante ni kaane dafa yàgg fii ci euh, ci politique bi. Mhm. te dañu koy woyaale amul benn leader boo xamante ni mënoo wax ni sama waa kër du yor ay ngàndaay. dañu yor ay jaasi wala ñu yor ay yat def ko ci ay saak denc ko. pour bu ñu dajee ñu mën a génn dem xeex loolu nga yaakaar ni tey euh, jeunesse bi wala tey ñun citoyens yi ce que tey ñun amuñu ci benn part de responsabilité mm-hmm. est-ce que ñoom ñooñu bu ñuy def ay rendez-vous rendez-vous trois heures du deux heures du wala bu ñuy demante ay ngénte mm-hmm. wala bu ñuy demalante ay dëj di jaalante est-ce que tey ñun askan wi dañ koy fekkee léegi dañuy manigancé boole ñu ci seen i termes ci mm-hmm. de parler ñun ñu dajee ci terrain bi di xeex ak xuloo après ñoom ñu toog ci euh, ensemble ba wala tey ñoom ñu doon ay ministre wala tey ñoom ñu doon ay DG université koo ci woo du la wuyu ku la ci xeexloo tey boo ba mu lu mu bëgg tey bu ko amee bu subaa boo ko woowee du du la wuyu boo ko soxlaa doo ko gis mhm. te yaa ko xeexaloon ca teereem est-ce que tey jotul ñun ñu yeewu bañ leen a topp ñoom ci seen de questions que l'on se waaw ci ci violence yi moom euh, dafa am euh, li nga xam ne euh, seetlu nañu ko parce que li nga xamante ne gis nañu ko kàncuku commune bu Ndiaré euh, Diaroumé pardon nekk ci département bu Bounkiling mhm. euh, rawatina itam li nga xam ne xew na mhm. Guédiawaye xew Saint-Louis mhm. euh, niki démb mu xew itam fële ca Kaolack boo koy seetlu ci diggante ñaari coalition la mooy coalition au pouvoir bi nga xam ne mooy benn Bokk Yaakaar ak coalition opposition bi gën a am doole ci li ñuy wax mooy Yewwi Askan Wi ak wàllu li ko waral nag mooy xam nga violence dafay nekk une forme de communication pour ki gën a néew doole ci li nga xamante ne jàpp nga ne boo leen dajee foog nga woone sa bopp mm-hmm. bu coalition Yewwi Askan Wi ak benn Bokk Yaakaar daje da ngay dégg ñu ne provocation bi mi ngi jóge ci benn Bokk Yaakaar mm-hmm. dégg naa sax léeg-léeg Ousmane Sonko naan bu leen wuy ci provocation yi mm-hmm. mais yow leader bi léeg-léeg ngaa jàll mais li nga xam ne mooy sa ginnaaw pour contrôler ko itam du du yomb. Mhm. parce que comme yaa ngi koy wax sànq yenn ngannaay tamit du parce que da nga bëgg xeex mais buñ lay attaqué itam foo nga riposter loolu moo waral que ne xenn xëy na kenn ku ne da cee da cee ngànnaayoo. Mhm. mais jàppal ni rek li nga xam ne mooy utiliser bi ñuy utiliser les jeunes. Mhm. c'est vrai que élection moom campagne dafa ànd ak violence loolu tam nit ñi waruñu ko waruñu koo fàtte maintenant. Euh, euh coalition organisation société civile yi am na ci boo xam ne démb génne na ci euh, communiqué mm. euh, mooy euh, ñi nga xamante ne mooy le collectif des organisations de la société civile pour les élections mm-hmm. wax ci li nga xam ne moo jëm ci violence bi parce que dañoo am des représentations au niveau national pour vérifier tout cela léegi nag appel candidat yi daal loolu lañu bëgg dalal xelu militants yi ñu amal campagne bu am solo après ñu dem élection c'est important Thioro d'accord donc damay fekk si rek euh, sama gars ci li ñu mooy que violence violation yi moom du lenn loo xam ne nii dañu koy dañu koy euh, rafetlu. Hmm. nekk na loo xam ne nii ñun ñëpp si sunu biir la rek yaakaar naa élection yi comme ni ñu koy waxee sotti si ak def si la. Hmm. mais aussi dañuy permettre ni nga xam ne nii ñoom ñooy askan wi ngir ñu xool ana kan moo gën. Hmm. ci li nga xam ne moom la ñu yaakaar ci seenum réew ñu teg leen fa. mais nag man damay joxoñ baaraam directement comme ni ma koy defee rek ñii di nguuru Sénégal. a chaque fois nit ki doxalinam dafay feeñ aussi ci li nga xam ne nii noonu la ko nit ki di fekk see ci doxalinam parce que bu fekkee ñoom ñoo jiite ñoom ñoo yor doole gi tey jii am na ñoom euh, apaisement bu ñuy woote boo xam ne ni tey jii xëy na bu leen ci opposition bi fekk si wul sénégalais dinañ am fulaak fayda taxaw daan ne leen yéen li ngeen di def du dëgg du yoon yéen opposition mm-hmm. dañ leen a woo ci fitna xamulu nga lu tax mm-hmm. parce que dégg nañ fii kii di Farba Ngom mm-hmm. lan la ci président de la république Macky Sall interdirul woon mhm. Ousmane Sonko. nee na Fuuta da ko fay tere. Mhm. lan lañ déggoon Lat Diop wax ko ca Géejawaay. Mhm. alors que loolu noonu ñu expliquer ci ay euh, euh, euh, discours la yoo xam ne ñoom dañ ko tenir avant les élections avant les campagnes. bu ko ay militants déggee ak ñeneen ak ñeneen ci waa APR bu ko seen militant déggee moom mooy waral ñu génne benn bi wala sax ñu génne yenn ci ay violence yoo xam ne ñu ngi koy am seen diggante ak morom yi nga xam ne ñoom ñooy opposants yi benn bi mooy li nga kii wax léegi Xuddoos wax léegi ci Jarume. la xew du leen lu dul euh, militant wu benn Bokk Yaakaar bu jóge ca biti réew ñëw ngir jàppale commune am jàppale benn Bokk bokk yaakaar ci commune am ngir ñu am fanam moom moo génne ab pistolet daal di tirer ci kaw ay euh, partisan wu yeewi askan wi mu nekk nag des choses yoo xam ne nii mhm. xëy na euh, lii di euh, discours da koy indi des fois li nga mhm. xam ne tam mooy apaiser tension wu élection yi fu mu mhm. egg si tam da koy am aw wax na ko léegi ci kaw élection législative yoo xam ne dañ cee jëm ñu mel ne ku jëm ci présidentielle lu warul la lu warul la te gis nañu que ñoom Benno Bokk Yaakaar ba tey ñoom ñoo njëkk a jóg pour def euh, commencer seen campagne ba ñu ko commencé na lañ commencé nekk na ci bokk na ci loo xam ne internauto sénégalais foo mëntitoo même soo demee ci grand place yi lan li ñuy wax moom mooy est-ce que président Macky Sall moom moom mooy amal élection yi wala dafa bokk ci élection yi ak ni ñu xamee ne noonu la war a neutré mm-hmm. Mimi Touré génn di wax ay réalisation ak mm-hmm. yeneen yu ni mel dafay nekk loo xam ne bu ñu leen ci fekk see waaw mm-hmm. day nekk leneen dañuy dévier nit ñi ci seen ay bëgg waaw mi ngi euh, am na solo lool mu mel ni même yow tamit Salma nga ko léegi euh, vraiment mu mel ni rek ñi ngi nekk ci campagne euh, présidentielle fekk ne ci mbirum législative rek dañu euh, tollagum mu mhm. war a am le 31 juillet 2022 donc askan wi li ñuy sàkku rek ci yooyu le leader moom moo ñu amal li nga xamante rek moom mooy seen campagne ci dal ndaxte fitna yóbbeewul réew fen te saa suñu dañuy gis ay loxaange yi nga xamante da koy daal di jur mhm. ci ay gaañu gaañu yoo xamante mënoon naa ñàkk parce nag le jour J ku nekk xam nga ñooy jongante peut-être concurrence la rek waaye itam militants yi nañu xam ne duñ ay ennemis parce que suba bu ñuy gisante wala bu ñuy euh, jokkalante yow doo ko fekkee donc nag xalaatal bu baax a baax li ngay def balaa nga ciy jëlee ay lore yoo xamante ni doo xam euh, fan nga koy euh, waxee Salma Ibrahima mhm, Fall c'est important mu di ay kàddu yu nga xamante ni je pense que tem yu ni mel ay continuité nga ci doon def tout le temps naka la ñu war a tànnee suñu député naka la député bi war a mhm. bi dem pencum ndaw réew mi pour représenter le naka la war a doxee foofee ca assemblée nationale tey jii bu ñu ñëwee en période aussi. Mm. Euh, campagne bi naka la naka la war a tëddee ñoom naka lañ war a doxalee ñun aussi ñi nga xamante ne ñoo choisir naka lañ leen war a. surtout loolu mais loolu sénégalais yi sax ko waxu ci ci leader yi ci coalition yi nga xam te ñoom ñoo fi nekk parce que tey jii peut-être ñu bëri moo leen di mm. yóbbu mais mënuñ laa woon programme bu concret te mm. programme je que loolu moo gën a ëpp solo. Mm. tey jii boo demee ci assemblée nationale lan ngay euh, teg ci table bi lan nga war a gis ni que loolu la ñuy changer lan ak mm-hmm. lan lan lañ wax a defaxaat mais bu dee nag da ngay topp mumbaay bi ak xumbaay bi daanaka du amale njëriñ bi fenn. Mhm. c'est important donc ah dama ci soft rek li awa wax que Euh, bokk na ci aussi euh, luy baax ñuy déglu wala sax ñuy seetaan campagne électorale bi aussi parce que y a des euh, yoo xam ne ñoom ci seen campagne électorale li ñu ko jox yëpp moom mooy jàkkaarloo ak askan bi wax leen ana lan lañ leen naral au soir du 31 juillet parce que bu ñu toppee rek ñoom nee ñu débuté moom mooy que dañ doon promouvoir ay réalisation président Macky Sall ba ñu jàpp ne ñëpp noonu la ñu mel mm-hmm. alors que ñi ngi sillonné comme ni ngeen ko waxee ci Aar Sénégal man gis naa yeewi askan wi à dem ñu ngi joxe seen i ay programme ñuy gis wàllu a chaque fois ñu ngi joxe seen i ay programme même Pape Djibril Fall comme ni ko waxee eh, MPR ñu ngi joxe ay seen programme soo leen dégloo ci seen biir campagne ñoom ñu ngi profité aussi di wax seen i ay ay ay li nga xam ne ni tam moom mooy seen bëgg-bëgg au soir bi bu baax a baax Mrs mm. Mbacké vraiment thème bi neex na mm-hmm. war nañ si bàyyi xel bu baax a baax ndax ñun ah. ñëpp suñu njëriñ effectivement ñun ñëpp suñu njëriñ la du ñàkk dinañ ko def continuité mm-hmm. invité fi koo xamante ne peut-être xam-xamam dina ci match mm-hmm. ñu gën a sur le rôle et le choix des députés parce que mhm. dafay baax tout le temps comme ni nga ko waxee Salma mhm. ci insister bu baax baax pour askan wi xam mhm. ana kan la a euh, sandil seen ay carte mi ngi noonu amoon mbégte contentement <laughs> euh, ñëwoon seen rubrique seetlu voilà mi ngi noonu jox leen rendez-vous mardi incha euh, <laughs> na solo da ngay toogaale nag ayca donc waxtu wi nag su jotee faaw ñu xool ji ñi nga xamante ne ñoo di sponsor yi xool baax baax yi nga xamante ne dañu koy tegtal le temps que Aliou Sow di ñëw mbay di wàcc ñu continuer